xamal nit yoonu njub moo nekkoon sunna yonent yi alayhimu salaam moo doon sunna nit ñu baax ñi nit ñu sell ñi borom wëllëre yu dëggu yi ñee woote ci dundal diine lislaam ñee woote ci mbokkoo bu dëggu entre jullit diggante jullit kon dafay war ci képp kuy wuyoo turu jullit muy wëlbatiku di laawee biir ka mu dendal ci la mu ko teree loo xam ne mën na ko yokk jege yàlla mu koy tegtal yoonu yiw di ko tegtal yoonu tedd nga di ko tegtal yoonu teraanga di ko moytaliku loo moy ak yoonu sankute di ko moytaliku doo yàq di ko woo ci xel mu rafet ak xam-xam ak jàjje boo xamante ne jàjje buy neex a dégg la neex a topp ci yoonu yàlla subhanahu wa taala di ko tegtalit ci lépp loo xam ne mën na ko jëriñ ci la muy liggéey ci liggéeyu kaayam di ko jëriñ ca la muy jaay di ko jëriñ ca na muy jëndi sax di ko jëriñ ba ci biir néegu sëyam waxtu wi tànn soxna ak njaboot yooyu yëpp tabaarakallahu diggante julit ak moromam dafa war nit ñi di ci waxtaan di ci laayante biir jullit war na laayo biir mbokk julitam ngir moytandikuloo ko yu bon ak tooñ xiirtal ko ci jitaayu borom xam-xam yi xiir ko su gisee ku ñuy tooñ mu dimbali ko mu am ndam ci kaw kaka tooñ di ko xiir ci rafetal jëflanteeg ba ci tànn xarit xarit yi nga xamante ni borom jikko yu tedd lañu borom dund yu baax lañu yu ñu naw lañu kenn ku ne denn nga koo xam ni mooy kat la war nga xëcc ci loxoom ni ko mbokk li nga nekk baaxul nan sàngara baaxul njaaloo baaxul sàcc baaxul moytu ko laawee biir ko ba mu dellu si yoonu njub koo fekk muy tooñkat nga woo ko ci béréb nga yedd ko nga waar ko li nekk ci tooñ ak bakkaaru tooñ nga di ko xiir ci dem jumaa di ko xiir ci wuy borom xam-xam yi ak dégg seen woote di ko xiir ci jëflante bu rafet soo gisee nit mu am àndandoo sax te àndandoo yu doon àndandoo yu kenn nawul war nga xëcc ci loxoom ni ko yow war nga moytu diw de ak diw ndax ñii kenn naw leen ñii amuñu diine ñii amuñu jikko yu rafet yooyu kenn ku ne war na jege nit laawante ak biir ca moom ngir mu am ngërëmal yàlla wal yansaxi almuslim li abihi li yattabi alxaqa walsawaab wa yabuud an aldalaal fi rifqin wa xusni adabin kama nasaxa lilrahman li abihi qaala taala wadkur fi lkitaabi ibrahim innahu kaana siddiqan nabiya id qaala li abihi ya abati lima tacbudu ma la yasmacu wala yubsiru wala yugni anka shay'a sadaqa allahu alazim doom soo dee jullit war nga wëlbatu ko laayo biir sa wayjur su fekkee wayjur bi nekkul ci yoonu siratal mustaqim doom war na mën wax ak wayjuram ci njëkk ak yar ak dal ak teraanga ba wayjur bi dellu ci yoonu njub moom Ibrahima alayhi salaam alquran yi nettali moom ñi xaritu yàlla wuy juróom nekkul woon ci la mu nekk dafa daan jaamu xiram yàlla ni ci alquran fàttaliku leen maam ibrahima alayhi salaam nekkoon na siddiq nekkoon na yonent teewul ñëw na si way juróom ni ko bàyyi bàyyi lan moo waral ngay jaamu loo xam ne xiram la du la dégg du la gis te mënul la fii ak fa ñu jëm dara kooku doom la boo xam ni ñëw na laawe biir way juróom ca la mu nekkoon wal yansaxi almuslim li ahlihi xaafan lahum ala alsalaati walzakat kama faala ismail alayhi alsalam qala taala wazkur fi lkitaabi ismail innahu kaana sadiqa alwacd wa kaana rasula nabiya wa kaana yaamuru ahlahu bilsalaati walzakat wa kaana inda rabbihi mardiya sadaqa allahu alazim jullit bi war na di yedd njabootam soxna yeeg doom yi xiir leen ci julli ak génne asaka mam ismail alayhi salaam jaaram na ci alquran yaxal na ko sama borom ne fàttalikul ismail alayhi salaam nekkoon na koo xam ni lu mu digle def ko su la joxee rendez-vous ak lu mu yàgg-yàgg dana toog xaar la te mu la fay jiitu te yonent la ndawal yàlla la woon dan dajal njabootam naan leen soxna yi na ngeen julli na ngeen génne asaka na ngeen saraxe te moom yàlla gërëm na ko kon kullu kuy way jurit boobu cër amee nga ko sa ay njaboot wal yansaxil waalidu li abnaihi li yakuna minhum rijaalu lkiram alladina yuslixuuna fi lardi wala yufsiduun li yansaxa lahum bima nasaxa bihi limaam aliyin karrama allahu wajhahu li wajhihi lxasan kullu kuy way jur war na dajale ay njabootam léeg-léeg di leen tegtal yoonu mbaax moytuloo leen yoonu yàq yi ngir ñu bokk si njabootu lislaam yi tiitaroo Seydina Aliyun karamallahu wajhahu woon na Xasan Ali radiyallahu anhu doom ja ni ko yaa bunayya ij'al nafsaka miizaanan lanaa fiimaa baynaka wa bayna gayrika fa ahib li gayrika maa tuhibbu li nafsika wakrah lahu maa takrah lahaa wala tadlim kamaa laa tuhibbu an tudlama wa ahsin kamaa tuhibbu an yuhsana ilayka wastaqbih min nafsika maa tastaqbih min gayrika warda min annaasi maa tardaahu lahum min nafsika wala taqul maa laa ta'lam wa in qalla maa ta'lam wala taqul maa laa tuhibbu an yuqaalu laka wala takun abda gayrika wa qad ja'ala Allahu laka hurran Seydina Aliyun karamallah jiw ma ngay laaj biir doom jëf ni ko yow doom defal sa bopp ngay balaasu nattukaay sa diggante ak keneen ku dul yow ni ko lépp loo xam ni bëggal nga ko sa bopp ci wér ak yiw ak teraanga adduna ak alaxira wëlbatikul bëggal ko keneen lépp loo xam ne bañal nga ko sa bopp ci doyadi ak toroxte ak ñàkk ak lu bon lu ne na nga wëlbatiku bañal ko sa moroomu jullit bul tooñ kenn soo bëggul ku la tooñ na nga rafetal jëme ci ñëpp soo bëggee ñu rafetal jëme ci yow na nga bañ ñaawal nit soo bañee ku la ñaawal ñaawal sa jikko lépp loo xam ne bëgg nga ñu lu koy gërëme soo gisee mu am ci kañ na nga ko gërëme loolu bul wax ci sa làmmiñ wu mukk loo xamul donte li nga xam lu néew la na nga yem ca la nga xam te bu dugg la ci nekkul bul wax mukk loo xam ne bëgg ku la ko wax na nga moytu nekk jaamu keneen fekk gannaaw bala yàlla bindee nga di gor moom sa bopp nga wëlbati ko nekk jaamu keneen ku yàlla moom keneen ni ko wa xifdu maa fi yadika ahabu ilayya min talabi maa fi yadi gayrika li nga amee si wërsëg ak daraja ak am-am mais na la doy nga téye ko sàmm ko bu rafet moo gën ngay xeemeem li keneen yore wal xirfatu ma al iffa xayrun min al ghina ma al fujur ñàkk wërsëg ñàkk daraja téye sa ngor ne moo gën amee wërsëg amee daraja ñàkk sa ngor wal maru ahfadu li sirrihi nit am bàmmeelu biir nit day am bàmmeelu biir daa digaale ak nit loo xam ni sa diggante moom ak yàlla ba ilal abat ñu war ko xam lii xew ci biir néegu sëy diggante borom kër ak soxnaam loolu ba ilal abat kenn war ko xam yooyu mooy feebar yi nga xam ne tey réer na si jamono ji nit ku ne la nga seq ak sa moroom suy wëlbatiku di ko nettali àdduna di gën tas mbokk yi di gën tas tasaaroo yan nañu yàlla xiir ci boppam ak di laaween ci biir wal yansaxil abawaan lil banaati li yakunna fudaylaat way jur yi war nañ yeddi seen doom yu jigéen ngir ñu bokk tànneefu jigéenu adduna yi alaxira yi benn soxna su tedd ñoo ngi nettali mi ngay yeb doomam bu jigéen bu doon sëy ni ko innaki xarajti min al ghish alladi fihi darajti wa sirti ila firashin la taarifinahu wa qarinin la taalifinah فكوني له أرضا يكن لك السماء وكوني له مهادا يكن لك عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا ولا تلحقي به عليه فيقلاك ولا تبعدي عنه فينساك واحفظي أنفه والسمعه وعينه فلا يشم منك إلا طيبا ولا يسمع إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا من كنا يدوم tey ji yaa ngi génn tàgg bi nga juddoo jëm ci néeg boo miinul te mooy sa néegu jëkkër ngal la waay soo demee na nga maase nerre suuf mu doon asamaan tiim la na nga doon jàmm bu jigéen mu doon sa jàmm bu góor bul ko diir mbagg jëkkër ku ko diir mbagg daf lay bañ ni ko bul ko sore soo ko soree mu fàtte la na nga sàmm bakkanam na nga sàmm ay bëtam na nga sàmm noppam ba du xencu ci yow lu dul lu neex du dégg ci yow lu dul lu baax su la nee jàkk xolam sedd ci yow yile tabaarakallaahu bii mooy li nga xam ni moo war jullit digganteem ak moroomu jullitam rawaate digganteem ak mbokkam ayyuhal muslim ansih li ghayrika bi'alil khayri wa tarki sharri wa anta lil khayri faa'il wa li sharri taarikun bila jarhin li shu'urihi wa bi ghayri xadashin li karamatihi mbokku jullit bi ñu delloo xel yi ci yàlla di laawente biir nag ci yiw te bàyyi bon te kenn ku ne la ngay laawe biir sa morom na nga ca jiitu ci lu baax di ko def te bàyyi lu bon yi laawe biir nag mooy wax ju tedd wax ju neex bu àndul ak gëdd bu àndul ak soxor bu àndul ak ñoddi mbubb bu àndul ak poñe waxtaan rek la ci njëkk ak teraanga ba kenn ku nekk jariñu yal nañu yàlla xiir ci boppam saxaaba bu tedd bii radiallahu anhu ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko baayaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaat wa itaai zakat wa nusxi li kulli muslimin nee na jaayante naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fu ma julli fekk naa ko taxawal na mu waree naa di génne asaka wante jaayante naa ak moom it ci fu mu fekk naa di laayu biir samay mbokk jullit alhamdulillahi muwaffiqi alaamilin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyu lmuttaqin wa ashhadu anna سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين هم لأهل الأرض أمان أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم mbokk jullit yi gannaaw ba ñu delloo tudd magu yàlla tabaraka wa taala toroxlu ci kanamam sàbbal ko sant ko julli ci gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam julli gu dul dog du dog ëmbaale njabootam gu sell ya taabiriina yi ba ilaa yawmi diin yan nañu ci yàlla boole ñoo ngi leen di dénkuwaat bi ñu yàlla dénk moo di ragal yàlla sama borom ne ci alquran yéen ñi gëm yàlla te gëm yi mu santaane te gëm wéetaayi ba mel na ngeen ragal yàlla te sax ci ragal yàlla googu ba su dee dee ñëw fekk ngeen di julli ju ragal yàlla yan nañu ko yàlla wërsëgal li ñu koy maye mooy tënku ci baat yi yàlla wax ci alquran ne sant nañu ñu jub sant nañu juboo te di jubal sant nañu ñu di rafetal sant nañu jokk mbokk ne tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew suñu sàmmo te kaddu yi insha allahu taala mu jural ñu ragal yàlla ñoo ngi toroxlu ànd ak ñaan yan nañu yàlla xoole bëtu yërmande fi diini wa dunia wal axira yan nañu yàlla boole jéggal suñuy bakkaar yu jëkk ak yu mujj yu feeñ ak yu làqu yu ñu tey ak yu ñu teyul jéggal ko mboole seen jullit yàlla bu ñu yàlla jàppe ci àdduna wala ci alaxira bakkaar yàlla bu ko yàlla jàppe benn jullit lu bakkaar rëy rëy ak lu bakkaar ñaaw ñaaw yal nañu ko yàlla baal baal ko bépp jullit fi diini wa dunya wal axira yal na yàlla dooleel lislaam bi dooleel ñooñu lislaam bi te boole ñu ci yal na yàlla nasaxal noonu lislaam nasaxal seen ndimbal te yàlla bu ñu si bokk yal na yàlla def leen noonu ci kàddu jullit yi te yal nañu ko bokk muurloo yal na yàlla dooli jàmm ci réew mi dooli jàmm ci réewu jullit yi suñu way dawe yi ci biir suuf yan yàlla ëmb leen ci yërmaleem ëmb leen ci njéggalam te yan na ko yàlla yaatal ba ëllëg ñun ñëpp suñu ñëwee xaj ca yërmale googu ak njéggal googu ci mbaaxam a yërmaleem suñu sëriñ alxaaji maajoor si radiyallahu anhu yan yàlla dooli leeram yenn yàlla dul yërmandeem ak ngërëmam yenn ñu ko yàlla fayal jazaal muhsinin njaboot gi ko fi wuutu ci doom ak taalibe góor ak jigéen yenn yàlla sax seen juboo seen dëppoo seen jàppante bu rafet ba ñu téye ndono ji mu leen bàyyil téye bu jur ngërëmal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma jaal jamana hada jaman marhuman wa tafarruqana min baadihi tafarruqan maasuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وثبتني واياكم على الصراط المستقيم واجارني واياكم من عذابه الاليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين انه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم jërëjëf Serigne Hadj Mouhamad Abdallah Cissé